السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أهل الصفا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله waaw mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci jotaay bi maa ngi leen di nuyu di jël nuyoo bi di ko teg ci ndigalu di ko teg ci loxo kilifa yi fi nekk ci jotaay bi mën nañ tey sunu kilifa gi fi nekk mooy Cheikh Tahirou Fall bi nga xam ne mooy président wu Modap ànd ak frère am Omar Bamba bi nga xam mooy coordinateur bi su ma leen nuyoo rek ñu nuyu mbooleem bureau bi yëpp bureau Modap waaye nuyu doomu daara yëpp waaye nag jiital ci nuyoo bi sunu kilifa yi sunuy waajur sunuy sang les xalifes généraux jiital ci nuyoo bi sunu kilifa encore Serigne Mountakha Mbacké xafisahullah wa ayyadahu wa nasara ni ki noonu ma nuyu sëriñ Babacar Sy Mansour ak mbooleem xalifa généraux yi waaye ngeen baal ma ma taxaw tuuti rek ci Touba parce que li fa xew fan yi ñun ñëpp gis nañ ko mooy ay nit ñu ñàkk seen bakkan ñun nag dañoo bokk ci njabootuk Serigne Touba parce que li ñu incarné wala li doon ñut ñuti ci suñu xol bañ dugg ci lii ñu nekk ki ñu ci gën a inspiré wala ñi ñu ci gën a inspiré mën nañ cee cité ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kon foofa lu fa xew rek dañuy jàpp ni suñu kër la xew kon ñu ngi jaale mbooleem njaboot gafa nekk jël njaal mi teg ko ci loxo Serigne Mountakha te ko ci loxo Serigne Bass Abdou Khadre mi nga xam ni moo yor kàddoom di ko di ko jaale di leen mastawu ya fa ne di dalal tamit seen xel que ni ku gis mobilisation bi nga xam ni gouvernement bi def na ko depuis mbir mi xew nga xam ni tey ñu doon wax ni ñii fonk ñu këru diine wala fonk ñu doomu daara jëf jooju war naa tëj seen gémmiñ kon ñu ngi nuyu waa Touba yëpp di leen ziar loolu moom point la boo xam ni mënta ñàkk ñu taxaw ci di ndokkeel tamit umma bi yëpp ci gàmmu gii ñu génn ak màggal gi gis nañ taxawaay yi ci ministre de l'intérieur am moom tamit ñu ngi koy félicité ci turu daara ji yëpp muy Jean Baptiste ndax lam lépp lu mu def ci këru diine yi rek ñun dañu jàpp ne ñun la ko defal te réussite total am na ci événement religieux yi loolu Cheikh Tahirou dina ci ñëw waaye man sama wax dama koy sos rek ci benn appel bu may lancé di wax ni réew mi dafa am ci ay guddi yu mu jëm guddi yooyu mu jëm nag daara ji daf cee war a am taxawaay parce que li taarix ne mooy réew mi heure bu musaana ne ci jafe-jafe daara ji bokk na ci ñi ko ciy génne parce que ñi fi def révolution yi nga xam ni ay révolution yu mag la tàmbalee ko ca Thierno Souleymane Baal ba ca almaami Abdou Khadir kan ba ca Cheikh Omar Foutiyou Maba Diakhou Ba ah ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick ponkal yooyu Cheikh Ibrahima ñas ñooñu ñëpp ay produit daara lañ kon ñoom dañoo mus a taxaw ci réew mi di ko jàppale ñun nag xam guñ xam loolu moo taxoon ñu jaayanteeg Ousmane Sonko ci politique te la taxoon ñu ànd ak moom wuñ ci dara. ndax bis bu set mu def lu gën a kawe sunu njort Cheikh Niang mi toogoon fii wax na ko direction bii mu teg ñun dañu gëm ni diine ji la ko tegal umma bi la ko tegal waaye daara ji la ko tegal madab la ko tegal waaw ñu ngi félicité bu baax sunu frère Jim drame di ko wax di ko tàllal loxo te fas yéene ko jàppale parce que ñun dañoo gëm ni suñu alal la yor li mu yor ñun Modab ñoo ko moom moo tax ñu fa yéene ànd ak moom dinañ ko jàppale ci Zahir ak ci baatin parce que jàppale ko mooy jàppale président Ousmane Sonko mooy jàppale président Diomaye léegi nag élection yi ku ne xam na ni tey ci laa bëgg a wax dafa am rendez-vous boo xam ne daara ji mosu ko rate rawatina élection yi ñu jëm parce que wolof dafa am lu mu wax ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw te ndab moom boo ci fotee waratoo cee fotaat te li ñu for li ñu for ci li ñu for comme ni ko wolof di waxee mooy ci wewu bëy dañoo fas yéene dem ci élection yi pour xam ni réew mi ñoo def seen choix ci président Ousmane Sonko réew mi ñoo def seen choix ci président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye rendez-vous boobu nag daara ji waru ko tardé moo tax je lance un appel fu ab sëriñ daara nekk ci réew mi wala nga nekk sax bitim réew te am njaboot ci réew mi nga gën a taxaw ñu ñu def benn bloc jàppale président de la république ba mu am majorité écrasante mm-hmm. parce que bu ñu amul majorité li ñu leen digoon néewuñu duñ ko def mais am na ci loo xam duñ ko man te réew mi ku fi yori nopp fi mu ne yori bët xam nga ni jub jubal jubbanti giñ doon jaay réew mi bu dee doxaluñ cent pour cent yi quatre-vingt pour cent yi moom àgg nañ ci te man yàgg naa di wax ni dóore moom yàkkamtee xeex la parce que réew mi am na ñoo xam ni mënuñoo fexe ba duñ goqi li ñu jox li liñ jëloon hmm. ñu góox hmm. waaw boo gisee coow li ngay dégg yépp mooy am na ci ñoo xam ne xam na ni mënuñoo bañ a dem rëbës te ñi ci bari nag ay tàppete ci ëpp parce que koo dégg muy yuuxu tàppet la parce que Ousmane am na lu mu jàngale Sonko mus moo tax témoignage bi Serigne Bass Abdou Khadre def il faut doomu daara jàngat ko hmm. parce que daf ko ni yow Ousmane Sonko mosoo politiquer diine ci waaye yow mosoo mosoo yuuxu mosoo saalit gars yi fi ne boo déggee coow li yëpp ñu bëgg a dajaloo dañu ne nañ dajaloo balaa waa bala ñoo waajee ren di waaye ku ci jëlul alalu réew mi mën ngaa tëdd nga nelaw waaye ku ko ci jël nag xoola ak foo man a làqatu di nga ko génn mm-hmm. parce que réew bi nag alal ji Sonko moomu ko réew mee ko moom te dañ ko ko war a delloo il faut ñu jàppale président de la république parce que le président de la république chance la pour le Sénégal duo Ousmane Sonko ak Diomaye chance la pour le Sénégal dinañ dem ci élection yi dinañ taxaw ci kanamu Ousmane Sonko comme nañ ta taxawee woon dinañ taxaw ci ginnaawam dinañ taxaw ci ndeyjooram dinañ taxaw ci càmmiñam li gars yi naan ku ragal na nga daw Sonko ngi ñëw dal seen kaw. waaye ku ragal na nga daw daara ji ñu ngi ñëw dal seen kaw parce que réew mi daara ji mënatu koo bàyyee kenn li taarix wane it musu koo bàyyee kenn boo toogee ak say kilifa nag say wax mënta bari parce que jotaay bi ñu fi nekk ñëpp suñuy kilifa lañ sëti Serigne Touba yaa ngi nii suñ ginnaaw jóge ba Touba ñëw ma dalal seen xel ñun ku gëmul Serigne Touba walla nga koy contre la ngay wax yow la engagé. lii may wax nag man Imam Dramé maa ko wax parce que ñun ay produit Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu lañ na leer kon ñiy diaboliser nañ ñu génn ci débat boobu ñun kenn duñu jàngal Serigne Touba te xam nañ lim ñu defal lu jiitu ñuy engagé wu ci politique te duñ ko jaawaleeg dara am na nag ñu takki rajo di ay tàppet yu mag amuñu fitu politique ñu bëgg a ci Sëñ Touba di politique ñun ñoo leen gën a xam sëñ tubaa ñoo leen ko gën a gëm man mii di wax taaliba Cheikh Ahmed Tidiane la mais nanguma ku ma gën a bëgg sëriñ Touba man parce que xam naa lan moo doon mission kon buñ jaawale Touba dalal leen seen xel réew mii li ko soppi bawal da cee bokk fàtte xaju fi ngont la Ousmane Sonko ngot doon Mbàkke Mbàkke kenn fàttewu ko fi ñoo déclenché waat xeex bi bi Macky Sall neutraliser réew mi bëgg def nit ñi ay gor bëgg a jàpp nit ñi ay jaam bawol ñoo jóg ni ko lànk nañu bawol googu mooy bawalu sëriñ Touba kon buñ jaawale combat ñun duñ contre benn mag même ñiñ bokkalul diine ñu nekk ci réew mi dañ leen a jox cër kon débat boobu nañ ko évacuer te bis ni ki tey Modap évacuer na ko du débat fii njabootu Serigne Touba ñoo fi nekk. njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ñoo fi ne njabootu Cheikh Ibrahima Niass ñoo fi nekk parce que ñun duñ jaawale ku mu neex nag yaa moom sa bopp lépp loo wax yow la engage mais engagé wul président de la république engagé wul premier ministre am engagé wul doomu daara yi parce que doomu daara yi ñoom duñ jaawale sëñ Touba ak dara. yéen xaar leen ñu Touba de Touba dañ ko war a gañee comme ni ñu raafalee woon bureau de vote yi. ci première bële ñi doon xaar deuxième tour bandi bu mel ni Bougane ngeen xam ni wuyu bu mag la xam nga foofu il faut ma taxaw fa parce que moom buggul réew mi lii may wax nag engagé wul pa euh, kenn man la engagé parce que yow réew mi mënta ne ci xat-xat ñu rey gor ñi yaa ngi dégg di leen di leen xoqatal nga ni da ngay xaar deuxième tour te réew mi buñ naxante ñu ngi ñaanal soxnaam soosu yàlla na ko yàlla yërëm mais réew mi ab célibataire duñ ko ko dénk bugaan da ngay dem nga takki jabar boo bëggee jiite ki ñun ay kilifay diina lañ ku ñu bëgg a jiite bàyyi leen li may wax ni man la engagé may ma tuuti rek lii may wax dafa am solo ñun dañuy politique ku ñu bëgg ku ñu bëgg jiite ñun kilifa diina da ngay am soxna sañ bi mais mënoo nekk célibataire ba noppi di xoola ba pare di di coow rek loolu parenthèse la li may dalalee seen xel mooy Ousmane Sonko lépp lu mu leen waxoon moo leen ci jiitu kenn gënu ko bëgg réew mi lépp lu ko dal bëgg réew mi ko teg bu mu ñu gën a gore falal nañu président de la république muy Bassirou Diomaye Diakhar fay élection yi ñu jëm nag élection Ousmane Sonko la yéen réew mi yéen a war a dajaloo delloo ko njukkal liñ koy delloo njukkal mooy jox ko majorité écrasante te loolu kenn du ci jiitu daara ji ngeen baal ma xeer yi nag dina rëy waaye politique nag ak xeer yi ñoo ànd te dañoo am na ci loo xam ni dañ naan sax léeg-léeg du discours religieux waaye nag ñun on est en politique xàmme nañ discours religieux ak discours politique parce que ki nga xam ne moom wëyu la bëggul réew mi da koy jaay di koy wëyu pour mu régler man loolu laa gëm te loolu loolu du ñàkkute nekk diine de yonentu sa sallam moo ñu jàngal ni Seydi Hadji Malick moo ñu ko jàngal foofu laay daanee mu ni wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal waraa nee na l'islam bi ñu ngi ko tasaare ci ñaari étape ñenn ñi dañ leen a convaincre mooy gor ñu baax ñi ñu ànd ak ñun ñenn ñi ay wëyu lañ yonent bi dafa xeex ak ñoom ba ñu réglé moo tax réew mi am na bandi yu fi nekk ku xeexut ak ñoom doo gouverner réew kon bu ñu jaawalee li Sonko naan nañ cookee ñoom ñun cooki boobu dinañ cookee ak yéen te xaalis réew mi di ngeen ko génne waaw xaalisu réew mi mun leen a fexe ba du ngeen ko génn tëj nañ frontières yi kenn du génn lu fi waay yoroot di ko génn te dara du yëngu ci réew mi nag réew mi tin moo ko yor tin waaw waaw kon maa ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp ngeen baal ñu àq di jégalu sëriñ si nag